Sénégal jàmm rek mo fi xaj ne pouvoir def wareefam opposant yi tamit def sen wareef ñepp nekk ci jàmm jàmm mo gën ay té réew mi nak ñi ngi ñaan classe politique Sénégal comme pouvoir ñu jël sen distance bala yef di egg fenen élection présidentielle yu am jàmm lañ bëgg té ñi ngi ñaan jàmm am Sénégal si loolu nag Sénégal bi nga xam ne dañ ko bëgg bëgg boo xam ne amuñu dayoo ci moom sans intérêt personnel bëgg nañ koo sàmm comme ni ko fi maam yi ñaanee woon waa déggoon nañ suñu maam sëñ Abdoulaye Mbacke mu daan wax naan réew mi du tàkk kon na rabtaal yaay tàkk loolu nag du waxi neen que ce soit le pouvoir que ce soit euh, l'opposition réew mi du tàkk kon nag ñu ngi ñaan jàmm ci réew mi am ñu jéggi 2024 ak élection jàmm ki war a nekk président nekk président ki war a faru falu falu ñu ngi jàppale nag président Macky Sall que soit mu nekk candidat xayrun bu nekkul candidat tamit ki mu teg pour mu nekk candidat ñun ñu ngi si ginnaawam waaw jërëjëf loolu moo nekkoon euh, kàddu yi nga xam ne mooy kàddum jàmm bi ñu bëgg ci réew mi li des nag mooy le réseau des mouvements de soutien pour le président Macky Sall et grand rassemblement national pour le développement dooguñu jekk-jekk rek nga dañuy jàppale président Macky Sall ku gumbawul wala euh, soxoro wala iñaanoo président Macky Sall liggéey na lu rëy ci réew mi liggéey na lu rëy rëy ci réew mi ku xool BRT bi xool euh, tali yi mënoo koo compter foo dugg ba ci Petersen bi boo fu duggee tey jii nii BRT bi nga dugg parcelle wala nga dugg Guédiawaye foo dugg rek yaa ngi gis loo xam ne président Macky Sall def na ko fi kon président Macky Sall

mi ngi def li war yëpp si plan social plan économique si lépp mi ngi liggéey kon kooku dañ ko war a jàppale président Macky Sall ah, ku yàlla dimbali la mu am loo xam ne président yi fi jaar yëpp daanaka kenn amu kenn defu ko fi su deux mandats mu liggéey fii sumb bu réy bi loolu ndimbalu suñu borom la kon kooku nañ ko jàppale bu bëggee dem mun nañ ko dollil bu bëggul tamit kum fi teg ñu jàppale ko waaw loolu daal moo nekkoon wax ji.

président mi ngi wax ak ñoom pour ñu finance jeunes yi mais financement yi malheureusement eggsiwul ci jeunesse bi ak famille président ñi ngi koy ñaan loolu mu gën a gaaw wax ak ñi nga xam ne ñooy acteurs yi nga xam ne da ko teg seen loxo ñu jàppale jeunes yi say financement ak surtout les artisans moi je suis un bijoutier centre bi ma nekk nii ku ne gis ni mel ñu ñaan président mu jàppale ñu jàppale ñu mu jàppale ñu sur côté yëpp waaw loolu daal lañ doon ñaan te di ñaan réew mi daal am jàmm te di féliciter sunu candidat président Macky Sall fekkee day dem ak bu demul yëpp ñu ngi koy jàppale ñun parce que dafa liggéey liggéey bu rëy ci réew mi waaw loolu daal la ñuy feddale du ko waxaat xëy na daal loolu moo nekk suñu kàddu